et pourquoi les gens ont rejeté globalement je dis bien globalement mooy ñëpp député ñoo toog ñu ni article <laughs> 87 bi daal président ñun benn Bokk Yaakaar la ñu bokk ñun opposition la ñu bokk ñun noon na la ñu non inscrit xam ñëpp ñu ni duñ ko def on va pas scier la branche bi nga xam ne ñun si lañ toog xamul ndax au fond c'est leurs intérêts personnels li ñuy def parce que wax nañ ko ñoom ñëpp en sont endettés jëlay crédit <laughs> wax na ko ci kanam président ba mu leen recevoir jël ay crédit tey nga ñëw ne bon tas leen assemblée bi naka la ñuy fay crédit ils vont se retrouver dans des situations et puis dans sept mois <laughs> ki leen waxoon tas ko dem na yoonam ñoom ñëpp ils ont intérêt à ne pas moo tax ñu wax ko président la rek République président retiré ko mais ça allait être rejeté parce que tamit euh, suicide suicide collectif la woon non donc pour toutes ces raisons moi je trouve daal débat bi assemblée tey c'est un débat de bas niveau et répondre uñu question yoo xam ne askan bi mu ngi leen ciy xaar mooy les réformes et puis yenn point yi aussi c'est uniquement pour euh, bokk présidence assemblée présidentielle 2024 euh, leneen bon euh, des obstacles sont devant nous hein voilà te aussi vote bi pour ñu jàlle ko pour ñu jàll ko à trois cinquièmes des députés oui donc pour toutes ces raisons moi je considère Euh, je n'attends pas grand-chose de ce qui se passe ce qui se passe là-bas mooy ñëw leen ci seen ñu permettre à deux personnes d'être la